ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baalu àq te di leen baal di ñaan borom bi subhanahu wa taala yalla nu yalla boole baal te nak ñu ngi fi ci réew mi ñuy wax réewum gambi sëriñ ci sëmb sëriñ babakar nek ci quartier bi ñuy wax Bundung fi, ci kunda sëriñ ci sëmb sëriñ babakar mu ngi biir gambi ñi nga xamne dañ ko soxla woon di ko yittewoo ba nga xam nan la nu mëna def ba gis sëñ ci ma ngi fi ci Bundung kunda kon yow mi nga xamne may setan, bëgg gis sëriñ Cissé sëriñ si seetu loxo bi laa soxla sëriñ si ne yow mi bëgg seetu loxo bi numéro yooyu ñu affiché numéro benn numéro gàmbi la ak benn numéro Sénégal boo xam ne maa ko moom yëpp di samay numéro képp koo xam ne bëgg nga ma ci jot ci numéro boobu ngay woote bu dee da nga bëgg ñu seetal la danga bëgg tukki bëgg ñu seetal la yoon wax da nga nekk bëgg jëkkër bëgg ñu seetal la ko danga bëgg jabar bëgg ñu seetal la ko wala sa wàllu yaram nga bëgg ku la ko seetal sëriñ Cissé mo sëriñ Babacar la bu la neexee doxal fekk si ma wala nga jël oto fekk si ma maa ngi fii ci bundu sëriñ Cissé mo sëriñ Babacar fii ci seer Serekunda boo ñëwee dinga ma gis incha allah ñu waxtaan ca la la yëkkati ñu taxawu la ca sunu kéemtalaayu kàttan incha allah lim lan ca man ndax àdduna wax naa ne lépp loo xam ne yaa nga cay dugg bu fekkee ne danga nga ragal gàcce seet ko ba pare soog caa dugg bu dee mbirum tukki da koy seet bu dee sa wàllu yaram it nga ci am feebar yoo xam ne yaa ngi ko ciy gis te xamula feebar yi feebaru lum na machine o machine tiim na la te xamula lu ko waral sëriñ si nee na da nga koy seet boo ko seetee yàlla bi nga xam ne mooy dimbale dana xamal la ca yaram wa lan la danga xam sarax ba benn ñu xam la koy saafaral moo xam ci luñ lay ñaanu kurus lañ lay ñaanal pour yaram wu wér wala saafara lañu suñuy bind jox la ko nga sangoo ko yaram wu wér wala ay sunguf lañu lay jox nga sangoo ko sa yaram wu wér loola nag boo ko bëggee xam ndax am malaat ku ko am baa nga koy perfuser da ngay xam la ko dal Serigne Cissé mu Serigne Babacar ne ma ngi fi ci bundum ci quartier Serekunda ma ngi Serekunda quartier bi ñuy wax bundum kon képp ko xam soxla na ma wala nga am bagage yo Serigne yor nako ma di lancé képp ko ko ci am rek man nga ñëw fekk ma bundum fi ci Serekunda bo ñëwee inshallah dina la ko jox yow mi nga xam ya nga biir ba légui am soxla so xam sa soxla si biir kër la soxla si biir kër ga nag lan la moy da nga nekk sa soxna ci biir kër ga yeen ñaar manu leen fexé ba déggo wala nga nekk sa jëkkeur mënoo fexe ba déggoo moom te buñ la laaj lu ko waral it doo ko xam sëriñ ci sama sëriñ Babacar bu fekkee wax ju doy na la maa ngi fii bundu Serekunda boo fi ñëwee danañu waxtaan ca soxla booba ci sa diggante ak sa borom kër bi bëgg yéen ñaar ngeen nekk ci jàmm wala yow mi nga xam ne dafa am koy bëgg fu ne nga teg fa sa tànk te na nga bëggee amee woo ko sëriñ si sama sëriñ Babacar Ndeye kon maa ngi biir gàm bi danga may fekk fii quartier bii ñuy wax bundu fii ci Serekunda boo ñëwee dañu la taxawu mbokk mi nga xam ne it yaa ngi may seetaan ne Serigne Cissé mu Serigne Babacar man de dama bëgg tukki am naa passeport waaye bunt bu ne fëgg naa ko saa su ma ñaanee visa du ñu ma may ma ne la yow mi amee sa visa jëlal visa ba indil ma ko fii ci quartier bii ñuy wax bundu fii ci Serekunda boo ñëwee dana am lu ma bind ca passeport ba jox la benn saafara boo xam ne boo ko sangoo incha allah dem soob na yàlla yàlla mi nga xam ne mooy kàttanal jàmm di dimbale jaam incha allah yàlla dina la dimbale ba tukki ba ma nga bëgg da nga ko am ci façon bu gën a gaaw yow mi nga xam ne it yaa ngi may seetaan sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar moo xam da nga nekk ca diaspora ba moo xam da nga nekk Sénégal nga am rab boo xam ne da lay yàqal sëriñ Cissé ndax rab danañ ko saafaraan ndax rab dañ koy dindi ci nit ma ne la non non rab duñ ko dindi waaye saa su dañee ci yow jàppal ne aaya bu wàcc na ca kaw kullu nafsun zaa'iqatul mawt waaye kullu man alayhaa faanin sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ne yow mi toog di ma seetaan te am problème mu rab boo xam ne lay sonnal sëriñ Cissé ne da nga may woo boo ma wooyee incha allah dinaa la dimbale ci rab ba rab bu doon la yàqal dootul la yàqal ñu bëree ngi seen wërsëg war a dox ñu ne dañ leen liggéey fekk kenn liggéeyu leen raba leen téye te boo ko laajee lum de xamu ko kon kooku rab da koo téye yow mi rab jàpp di la yàqal di la yàq di yàq say mbir di yàq say wàllu relation moo xam ci yow ku góor la moo xam jigéen ki la yooyu yëpp di la dal te xamula lan moo koy waral waaye ndaw yu baree bari seen dund ngi échec te li ko échec loolu du leen ñaar yee tax seen dund échec kii sarse na place place ba amoon bagage lool mu xëy xëy place ba di wàcc te buñ ko laajee luy wàcce place ba xamul ko Serigne Cissé ne ñaar ndaw ñu baree bare ngi ñii seen addunaa ngi échec ñaar yii rek ko échec làmmañ bu bon ak bët bu bon Serigne Cissé loolu nag moom la ñuy wax cat waaye cat nag bu la jàppee Serigne Cissé mu Serigne Babacar am na lenn lu ma cay joxe loo xam ne bu ma la ko joxee ñeenti nàkkay ceeb la am na saafara bu may bind bu ma ko bindee dama la koy jox nga dem ko ñeenti nàkkay ceeb boo ko defee ñeenti nàkkay ceeb da ngay tëdd lekk benn nàkk toog lekk benn nàkk taxaw lekk benn nàkk sëgg lekk benn nàkk fu tooge nekkoon ci sa yaram wala bët bu bon wala làmmeñ bu bon incha allah yàlla dina la musal ci làmmeñ yooyu ndax wax naa la ñu lay catu nag baax na waaye na nga fexe ba cat bu mu am logement ci sa jëmm ji kon yow mbokk mi may seetaan nag yooyu yëpp di la dal lépp loo dugg dem ba commencé yaakaar mu mujj échec wala lépp loo dajale ci alal alal ja dem ba toll benn somme mu yàqu loola bu la jàppee sëriñ si seen jàppal ne cat la yow mi nga xam ne it da ngay jàmbat ci sa yaram wi ne ab liggéey da caan ne lu ne loo dugg rek loo dugg rek mu yàqu sa dara mantu baax kon maa ngi fii ci Serekunda quartier bii ñuy wax Bundu boo fi ñëwee rek incha allah Bundu da ma fi fekk man sëriñ si demu sëriñ Babacar incha allah boo wootee ci naa ñaari numéro yooyu benn numéro bi numéro numéro Gambie la benn numéro bi numéro Sénégal la numéro Serigne la mu Serigne Babacar la waaye seriñ Serigne Cissé man nag dama di mag amee sama kër waaye manumaa fexe ba am xaalis comme que yàlla wax ci alxuraan ne wa maa min daabatin di ardi illaa alaa llaahi rizquhaa jaamub yàlla bu ne am na wërsëg ñii nag dana danañu ñëw seen wërsëg dox ñii seen wërsëg day tàng kalewu bàncee jot il faut ñu ñaanal leen lenn ci kurus ñu ñaanal lépp pour seen wërsëg ubbeeku ñii il faut ñu defal leen sangat ñu sangatu seen wërsëg mën a ubbeeku ñii il faut ñu seetal leen xam seeni sarax ñu génn sarax ye yàlla ubbi seen bunti wërsëg kon yow mbokk mi yow mi may seetaan moo xam Sénégal nga ne moo xam Gàmbi gii ma nekk nga ne moo xam ci diaspora ba nga nekk sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ne kon woo ma ba mu woyee incha allah dinaa la taxawu dinaa la dimbale ci li la tax a jóg bu ko defee yàlla defal la sutura kon ñoo ngi jaajëfal mboolem gambien yi nga xamne ne ñooñu dalal ñu ngi leen di ñaanal yalla tawfiq ak sutura di ñaan réew mi di Gàmbi yalla fi yalla def waye waaye na rew mënu dëkk di Sénégal ñoo ngi ñaan yalla defal leen jamm tawfiq ak sutura jeexale nag mooy sunu réew mële ca sunu rew mële ci Sénégal ndax dembu de ngeen jangatu président Macky Sall wax na ci jangatam wax na ne mbir mi dal li mëna am moy ne il faut ñu def dialogue ndax mom wax na ne mandaxam jeexna na le de incha allah day joxe réew mi fa tabaarakallaahu loolu nag ñoo ngi ñaan yàlla yokk jàmm ji élection yi daal ñu ngi ñaan ki nga xam ne moo gën ci ñun yàlla ko fi yàlla teg waaye nag wax naa ne fan yi dama engagé patriote yi laa ànd ànd ga ànd ak ñoom naa leen nag na ngeen abonné rek laa leen sant ma jël dossier yi ko sama loxo jël course gi engagé ci patriote di ñaan nag yàlla mi nga xam ne mooy fal yàlla yàlla fal ci daraja yi Moustapha barkeb Sëriñ kër Si bég nanu kontaan nanu ñoo ngi ñaan Sénégal yàlla fa yàlla dolli jàmm ci darajey Moustapha ay jumaay fay jumaay jumaay jëri ngeen jëf